mbooloo maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci nekk turam ak di am kontante di am mbégte moo nga xam ne amul limite ci bésub tey bii xam naa ne keneen ku fi bëgg a def it jafe ci maa ngi leen di remercier di ci taxawaay beeg teewaay bi ah, di gërëm di sant di si dégg nañu kàddu yi dañu ko nas takk ko suñu digg ko doxee maa ngi gërëm Jaraaf Mame ci teewaay bi euh, kilifa bëri fi toog yëpp ah dina néew ku ah, fi ay ndoom mi tànk yi day nii yu mel nii yéen ñoom toogal leen kon nag maa ngi leen di gërëm te suñu bés ko parce que du ñu def dara lu am mbégte ci yéen di kontaan ah waaye ba ñu guddee rek eh, monsieur le ministre Seydou Gueye ñoo ngi di la baral nuyoo ñaari docteur eh, Malick nga xam ne moom nelawatul. lekkatul naanatul monsieur le ministre Abdoulaye Diouf ba pare may ko vacance bu doon noppoon ko ji merci beaucoup docteur Malick voilà yéen waa Ngor je pense que xam ngeen suma diggante ak suma frère Abdoulaye Diouf ah te li ñu dëgmal nii dafa nekk la nga xam ne dafa am solo ci ñun parce que man mii wax ak yéen ah intérêt Ngor moo tax ñuy wax te bu ñu waxee intérêt Ngor ville de Dakar daf ci am solo parce que ma je suis conseiller municipal à la ville de Dakar depuis sept ans waaw Dakar am de quarante milliards de budget te ñun waa Ngor mosuñu si jox ñaar dërëmi Mali parce que bokk ñu si ñay ñay séddale loolu rek war na tax ngeen jàppale ñu jàppale Abdoulaye Diouf Sarr mu ko ñëw ville de Dakar ñu ànd liggéey gox yi yëpp. tarder. donc pour ne trop long parce que mën naa wax ne sax yëf sotti na pare na ah fi mu nii amatuñu dara lu ñuy wax lu ñu ànd ak mbégte rek di gërëm ñëpp di o monsieur le euh, jël parole tëj affaire yi voilà monsieur le ministre message dama ñu déglu message bi wàññi animation bi ma bëgg ñu déglu message bi wàññi animation bi nuyu chef village bu Ngor di ko gërëm di ko taxawaayam di ñaan yàlla suñu wéjur Saliou Samb yàlla na ko yàlla yóbbu sa àjjana yu gën kawe doon nañu wétali toog suñu boor guddi ak bëccëg muy naaj muy daw bon chef de village ñu ngi lay yombante loolu si njabootam mais yow ñuy ñaan yàlla mu bàyyi la fii nga yàgg ci loolu wér tey nag dama ñëw Ngor seet si sama doomu ndey Amadou Gueye Aty ànd ak monsieur le ministre Seydou Gueye ànd ak mon directeur de campagne ànd ak l'honorable député Alioune Badara Diouf ànd ak une délégation très importante je crois que ici et maintenant à partir de Ngor Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que dans la compétition des territoires, Ngor est certain d'avoir le meilleur maire de ce pays. Amadou Gueye, je me remercie. Ngor est une très belle commune. Ngor est la commune de mon cœur. yéen waa Ngor am na luy ñëw le 23 janvier 2022 adduna mi ngi xool Ngor adduna bi mi ngi xool Wakam adduna bi ñu ngi xool Yoff adduna bi ñu ngi xool Cambérène laaj leen ma lan moo tax parce que son excellence le président Macky Sall dafa jël seen doom Abdoulaye Diouf Sarr ne ko jubboo nga ak waa Ngor say mbokk jubboo ak waa Yoof say mbokk jubboo ak waa Wakam say mbokk jubboo ak waa Cambérène say mbokk bon jox naa la le brassard le brassaru capitaine d'équipe jiite jël daga wa nag bu ñu ñëwee fii dañuy jël mission bi dénkaat leen jël mission bi dénk ko waa Yoff jël mission bi dénk waa Wakam ak waa Cambérène mais aussi ak waa Parcelles waa Grand Yoff waa Plateau un peu partout dans le département de Dakar ñu ñëw bëgg a defar bees c'est quoi Dakar bu bees Dakar bu bees mooy dakaar boo xamante ne day changer la fi newoon am na ñoo xamante ne dañoo ñëw ne dañuy taxawu Dakar 2014 ñu dénk leen Dakar pour ñu taxawu Dakar mais malheureusement yéen seetlu ngeen ne dañoo tardel Dakar moo tax ñu war a defar Dakar bu bees Dakar bu bees dana jëmmali Dakar ndawu Dakar président Macky Sall def na xëyu ndawu Dakar ñun bu ñu ñëwee ngeen jox ñu Dakar danañu def xëyu ndawu Dakar mooy taxawal pour jox de l'emploi aux jeunes mais les femmes de Dakar méritent d'être accompagnées dans l'autonomisation de la femme. En réalité, il s'agit de faire Dakar, mais de le faire autrement. Un Dakar boo xamante ne ku jóge bitim réew boo fi duggee di nga xam ne Dakar bi fi bàyyi woon ak bi fi nekk wuute na ma war a lancer le conseil de ville. bi xamante ne ce sont les enfants de Dakar ñoo koy sëq le conseil des enfants dans la ville de Dakar je vais l'instituer parce que la gestion de la collectivité doit tenir compte des préoccupations des enfants de Dakar. La gestion de la petite enfance ici à Dakar sera une priorité par le pour le maire Abdoulaye Diouf Sarr loolu dafa am solo may wax beneen mbir Dakar a le plus beau littoral d'Afrique mais malheureusement ceux qui gèrent la capitale aujourd'hui n'ont pas l'ambition et la vision dan faire un littoral d'attraction, un littoral qui fait en sorte que Dakar puisse retrouver son lustre d'antan. Dans mon programme Dakar bu bees di ngeen gis ne le littoral de Dakar et la corniche ouest de Dakar danaa ko defar bay ku fa ñëw di nga ne Dakar est une très belle capitale. ma jéem a daaneel. bi may daanele nag mooy élection yi at yi boo amee maire bu baax buy liggéey sab gox def fi loo xamante ne kenn mësu ko fi def muy laajaat dal koy joxaat bon waa jëraat leen seen dëkk ngeen jox ko Amadou Gueye at ku leen wax leneen te du loolu rek mi ngi leen mais lu tax ngeen war ko jox ba pare jox ma ville de Dakar depuis sept ans Amadou Gueye Aty est conseiller à la ville de Dakar depuis sept ans Abdoulaye Diouf Sarr est conseiller à la ville de Dakar depuis sept ans il est maire de la commune de Ngor depuis sept ans moi-même je suis maire de la commune de Yoff

ça fait 660 milliards. Si on a 660 milliards, en 10 ans, on doit mettre en place des projets structurants pour changer Dakar. Ça n'a pas été le cas. Bon, ñun waa Benno Bokk Yaakaar dañoo bëgg changer Dakar dañoo bëgg defar Dakar bu bees dañoo bëgg taxawal Dakar dañoo bëgg a nekkal boo xamante ne population yi ñoo ko moom bon nag ma terminer par vous dire que julli gi ñaari rakk la rakk bu njëkk bi da di jël kàbbar bu njëkk bi mooy kàbbar bi xamante ne moom ngeen di kàbbaral Seydi Amadou Gueye Aty rakk bi mooy rakku ville de Dakar kabar bu bi moom ngeen di kabaral Abdoulaye Diouf Sarr mu nekk maire la ville de Dakar bu ngeen defee door dina jëm kanam yor jëm kanam Ndakaaru jëm maa ngi leen di remercier waa Ngor lii nekk fii ñu ngi koy def en direct dans les réseaux sociaux mais xam ngeen lu gars yi wax gars yi ne non non non lii mënul nekk parce que dañoo jommi bon nag waa Ngor sagal ngeen ñu tey sagal ngeen Amadou Gueye sagal ngeen Abdoulaye Diouf Sarr mais le 23 di ngeen ñu gën sagal parce que di ngeen gagné Ngor avec 90 pour cent maa ngi leen di remercier bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. monsieur le ministre